waar nga xamante ne population bi ñoo ngi souffrir lii nii nga xamante ne mooy inondation moo ngi nii nekk sama ginnaaw wedd gis bokk ci kon bokk nouveau gouvernement lañu fal si bés bi nga xamante ne mooy ngénte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc nouvel gouvernement bi ministre bi ñoo lay ñaan nga bàyyee xel ñii ñi nga xamante ne ñooy waa Kaolack donc euh, notre cri du cœur c'est tout simplement ça aider la population de Kaolack car ils en ont besoin merci beaucoup